nga wax nga wax ji ba mu leer nañ mooy am nañu ci dox <coughs> di ci wax ngir loolu jàmm am ci ndax Macky Sall ci boppam xam na ne maanaam du jàmmi réew mi mu jël sunko def ko ci kaso bi ndax ku ci nekk ak lii la yàlla may Sonko suñ boroom moo ko may lii mu am nii maanaam yàlla day maye waaye ay mayam day wutee waaye moom xam na ne tey waxoon naa la ko fii ne mm-hmm. la Sonko biddéewam tàkk na jërëjëf mbokki internet yi bu ngi leen di duyaa di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan yàlla sunu jataay bi yow mi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew mi suñu jataay bi yàlla na la fekk jàmm te bu la fekk jàmm yàlla na nga jëfalanteeg jàmbaar ji sëriñ amuloo boroom yow mi ma xam ni su ma lay su ma lay seetal soo gisul li ma lay seetal demal wee fu woote foo yëkkatiwaat sa xaalis ñu jox la yow mi nga xamante ni que seq nañ ñaan yàlla boo amul résultat ah bu la neexee demal ci waa yëpp ñu loolu nag defe naa ni kenn mësu ko dégg ñaankatu yàlla waaye tey ñu del soit ak moom fas yéene seq ak moom beneen jotaay sëñ ma ñoo ngi lay nuyu di la siyaar di la ndokkeel sëñ Axma Lo borom sarax yi jërëjëf bu alhamdulilahi taala waxdahu wasalaatu wasalaamu ala asrafi anbiyaai wal mursalina sayidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabati ajmahin wa man bi ihsanin ila yawmi din mbokki internet yi ñu ngi di nuyuwaat di leen ndokkeelaat di ñaar yàlla fu ñu ab sénégalais wala foo mën a nekk rek ci àdduna bi di mbokkum Afrique di ñu seetaan rek ñu ngi nuyu bisimilah boobu. sëñ Axma euh, keroog avant procès Ousmane Sonko Adji Sarr bi la première keroog da nga xatraayu ne Ousmane Sonko kenn du ko tëj ci kaso bi boobu ba tey Ousmane Sonko mu ngi këram effectivement àtte nañ ko juge ko. ba teg ci moom benn sentence su deux ans ferme ci wàllu corruption des mineurs li ko ci yoon may nag mooy ci fukki fan ak juróom ba constitué wul comme prisonnier dem na yoon maa ngi ni dootul am droit appel bu ñu toogee ba 15 jours yi nag le 15 ci 8 heures te Ousmane Sonko ñëwulul boppam yoon da ko jël si te dañuy appliquer àtte bi ci moom mooy àtte ñaari atu kaso. booba tey nag am nañ ciy dox am nañ ciy wax am nañ ciy nangam ak nangam ak nangam nag Cheikh ma loolu naka la jàngatee situation Ousmane ko ndax normalement bu suba mooy la 15. waaw loolu moom sax daanaka wax nga wax ji ba mu leer nañ mooy am nañu ciy dox di ci wax ngir loolu jàmm am ci ndax Macky Sall ci boppam xam na ne maanaam du jàmmi réew mi mu jël ko def ko ci kaso bi ndax ku ci nekk ak li la yàlla may ko suñ borom moo ko may. lii mu am nii maanaam yàlla day maye waaye ay mayam day wutee mm-hmm. waaye moom xam na ne tey waxoon naa la ko fii mm-hmm. ne la Sonko biddéewam tàkk na xam nit ñoo xam ne seen biddéew bu xasee tàkk mm-hmm. boo leen jubloon a lor sax yow yaay lor voilà boo leen jubboon a buggoon a faagagal boo xefee yow mi leen di faaga yaay am jafe-jafe wala bokkoon deret yu bari mën naa tuuru mooy li fi xew ak problème yi fi jaar yépp moo tax i tamit ñi xam lu baax te mën lu baax ba ci man mi sax ay nit a ma ci ñaanloo yàlla mhm. ngir jàmm am ci mhm. kon mbirum Sonko jàmm rek moo ci war a am ndax mooy jàmmi réew mi mhm. kon ñi ngi ñaan président di ko ñaanaat beneen bi ci mooy ma ñaanalaat sama benn mbokk sama jarbaar la it muy Cheikh Baara Cheikh Baara nekk ci waaw nekk ci ay xar-xar moom tamit ci wàllum yoon moom it ñi ngi koy ñaanal yàlla comme ni ñu ñaan Ousmane Sonko comme ni ñu ñaan yëpp détenu boo xam ne nii maanaam yoon de laa teg loxo moo xam ci loo def la moo xam loo defut la ndax tuuma rek maanaam moo leen yóbbu foofu ñoom ñëpp la xam na ndax def nañu def xam waaye ñi ngi ñaan état bu Sénégal di ñaan tamit force de l'ordre ak mboolem président président de la République mboolem ñi mu àndal ñëpp ñu bàyyi Cheikh Bara mu delluwaat këram ci njabootam ndax soxla nañ ko fa lool beneen bi ci topp it mooy dëkk réew mi ñu nekk tamit ñu ñaan ci jàmm te doole ko cee ñaan te lépp lu ñu xam lu may jàmm ñu def ko fi

moom li ñu war a defee mooy bàyyi lépp mu sedd sax mm. ndax mm. mooy mm. jàmmi réew mi jàmmi réew mi lépp jàmmi réew moo gën Sonko dugg ci kaso bi jàmmi réew mi moo gën Adji nekk ci musiba mm-hmm. waaye jàmmi réew mi lépp nañ jël lépp den la war ko ci jàmmi réew mi mm-hmm. waaw man daal lool laa ñaan yàlla man loolu laa ñaan yàlla gisoon mm-hmm. ci depuis mu tàmbalee ba fi mu wax yow nii lu ma la ci mas a xalaat teg nañ ci bët waaye waaw mais loolu yëpp rek jàmm ko gën te jàmm bala nga xam ne moo gën nga gis fan yi Dakar doon yëngu ñu dëkkoon Dakar comme dañoo nekk ci yoo xam ne nii jàmm amu fa génnuñu demuñu marché liggéey wuñ defuñ dara kon jàmm saa yoo koy wuta wuta saa yoo koy bañ ba am ba am lu jàmm mhm. di nga xam ne la nga ñàkk moo gën foofu li nga am mhm, waaw loolu xam-xam la boo xam ne yàlla dafa def dañ koo mën xam ko moo tax may faral di wax ne am na loo xam ne dinaa ko leeralaal tamit mooy nit ñi dugg ci soxna dañ koy xool bu baax. maa ngi ñëw de waaw ndax damay faral di wax ne seet moom li ma ci wax bët bu set rek su ma sañoon nañ ma ko yónnee par wéef képp ku ma seetal rek te gisoo gisoo sa bopp ci seet gi may ngi la nga waal waaw retiré xaalis bi loolu may naa ko ñëpp chaque jour dama koy wax <coughs> loolu nag maa man gi ñu ko mën a tax ñu di ko wax nga xam ne mu mosuñu seetal ñu ba pare mun nañu dee seet sëñ bi seet gi wax dëgg yàlla gisuma sama bopp mm. waaw loolu xam-xam la. sëñ ma tey point bu njëkk bi léeg-léeg nit dana am barke mbaa mu bari wërsëg lool xëy gis xale bu jigéen bëgg ko dugg ci moom ay mbiram yàqu ñenn ñi gaaf maanaam ci ndaw sax lañ koy teg ndax moom la ñuy gaafal mm-hmm. waaw ma xàjjale foofu rek ñaar ba léegi muy barke ak wërsëg bokkuñu nit dina am wërsëg te du am barke nit dina am dina barke te du am wërsëg du ma du ñu wax sax moom wërsëg leen nañ jël xaalis pour mu leer nit dina am xaalis te du am barke nit dina am barke te du am xaalis waaw parce que nit ñi dañuy ne ku am xaalis rek am nga barke fekk du loolu barke bàyyi ñu saan wax du jëmm waaye jëmm ju mu nekk ñu xam ko ki am barke saa yoo ko gisee ñee ko ki am barke même bu amul lu mu reer suba soo gisee ñee ko te yàlla da ko sang ba daraam du xawee ko ci dina faju lu mu rëy rëy nag aaj dina faju loolaay barke da gis ne koo xam yor na xaalis te ji yow boo gisante gisoon te yéene ko sarax amul barke nga gis yor xaalis te lekku ci naanu ci solwu ci maanaam talu ko sax nag booy xool nga xam daa moom moom xaalis bi xaalis beeg far moom moom xëy faatu ñu seetlu ko ay nit kon barke ak bokkuñu wante nit dina am dara ñàkk ko fekk la tax mu ñàkk moom xamu ko hmm. moo tax dama am ñu ma seetal fan yu bari yoo xam ne nii seen soxla moo leen gàllankoor. Hmm, parce que dañoo takk koo xam ne seen mbir yi dëppoowuñ bi ñu takkee kooku seen mbir yi dëppoowuñ kooku ñëw mabbu mboolem li ñu amoon. ndaw si ci bàyyi xel ci moom. si sax mën nañu bàyyi xel waaye hmm. kenn du nangu sa defet kenn du nangu ne lii yaa tax mu am. Hmm. gis ñu baree bari ñoo xam ne nii bi ñu tekkee soxna rek lañ fay dem fay bu dee entreprise lañ yoroon ci lañ joxe daanaka bu faaw bu dee dañu yoroon oto yu bari wala alal ju bari ci lañ dox ba alal ji jeex. moo tax soxla nañ ci tey bu baax di ci dugg bërëbu liggéeykaay nañ koy xool bu baax bala nga ciy dugg kër gi ngay jënd tamit di ci dëkk na ko xool bala nga ciy dugg ndax bari na lu yóbbu nit en faillite te moo ko waral mooy dafa dugg ci loo xam ne ni ba mu ciy dugg xooloo ko da demee rek ak bëgg-bëggam jigéen lu rafet rafet rafet rafet sama baay naan jigéen dama ko bëgg kese rek bu mu ci dugal mm. waaw ndax si dama ko bëgg kese kese kese yam foofu rek rek bëgg doo nga ci dugal xooloo sa benn intérêt loolu ne musiba la a loolu tey bu la dalee euh, te bugguloo bàyyi ndaw si nga bëgg ko est-ce que solution am na ci. am na ci ñoo xam ne nii am na ci ñoo xam ne nii solution am na ci waaye am na ñoo xam amu ci. parce que da am ñoo xam seen biddiw yi dafa contradictoire maanaam bokkiwul fa leen jëmati. ci am na nag yoo xam ne dañuy wax li li toccal gaaf. ñoo xam ne dañoo am gaaf naturellement seen biddiw sax mën nañu ànd ba pare après ndaw si am gaaf. Hmm. gaaf googu mu am nag. mun na lay gàllankoor am ñoo xam fi ne nii ci misaal rek suñ kontaan loo seen jabar seen affaire day baax journée boobu day day baax waaw am ñoo xam bu ñu tëddee seen soxna rek bu ñu jógee bis boobu seen lépp mën naa baax tëdd nii ak jaxasoo ak moom rek am ñoo xam ne bu ñu jaxasoo seen soxna dañu tëju parce que seen rab yi mën nañu bañ a déggoo des fois biddiw yi ànd wërsëg yi ànd te seen rab yi duñu déggoo. ndaw si di la tëj nag rabam soxor di la tëj. dina tëj dina jàpp sax ba ci dina jox ay feebar am ñoo xam jamono bi ñu amee soxna lañ commencé di yëg ay feebar seen yaram hmm. te daawuñu woon feebar bu njëkk fekk rabu jigéen ki mën na di feebar nit ki noonu tamit ñàkk a ànd sëy dana tax nit ki faatu faatu bu gaaw wala ñaasu billah wala ñaasu wala maa di tali mu accident faatu wala mu am tawat di ko dal joo xam ne nii maanaam li fii gucc ndaw si du lay hmm. waaw nga gis keneen koo xam tamit yi takk soxna rek da ngay gis ne ci saasa wërsëgam daf ko ñàkk man waaw nam mënoon mënatu ko man dafa mënoon lu baree baree bare daan dimbalee waaye jékki-jékki ne yëpp mu ne kacc mm. loolu tamit soxna da ko def ba ci doom di nga judd sa doom dina rek ubbi sa wërsëg mm-hmm. am na ñoo xam ne nii seen yaay li fekk mi ngi fi ñu ngi doon am wërsëg seen yaay faatu rek seen yépp yàqu mm. dafay am njigéel dafa am li ñuy wax njigéel dafa am ba ci sax fi mu ne nii nit ñi nga xam ne nii ba ci affaire ay logo ay gis ñoo xamante ni ñooy si waaw logo dafa ji ñi ba ci yére nit ñi war naa xam façon couleur yi muy war a sol nit ki war naa xam façon peru jaar yi mu war a takk nit ki war naa xam bis yi nga xam ne ay saraxam nit ki war naa xam lan lay war di saraxe. waaw loolu loolu tax fi mu nekk nii nag ñaare saa yi ñu jëflante ak nit rek mu gis tawfeex parce que xam-xam boobu mooy xam-xam moo téye gis nga wàllum sacrifice muy sarax mu téye àddina bi coow lu rëy mën na am problème bu rëy mën na am rayante am tuur deret am yow mbir yi ba ci mbir yi amoon barki dem moo njaay ngaa jékki-jékki ne tekk rek da xam ne ci borom baati ñi def voilà gisu mën a teg ay lu mu rëy rëy sarax mën na ko fakk bakkan bu na rafaat la wax la Euh, sarax mën na ko fanq nit mën nañu dara sonn na ci mun a fexe ba am ko mu sarax rek affaire boobu daal di jàppandi. mbir mi mbir mi daal si xam li gën a wóor tey mbir mi mooy ak ceet ak mën a seet. waaw mën a nag moo yombut wax naa la bu tàyyi ne la ñu bari dañuy làmbatu waaye seetuñu te li may wax ne ku ko ñemee waxal client yi li may wax boo seetalee client bu bu fekkee gisoo ko mu jëlaat xaalisam boo defee amul ko parce que des fois nga seen client pare day xam ne rek. bon dugg na ci pare xaalisam daal mënut a wax daal ah baax na daal di coupé mais ñun ñi seet la ba pare yokku ngay njëkk a def parce que daañu dañ daañu ku mës a jaar ci man te seetlu ci yow weddi say wax dox na ba jamono mu joxaat ma dëgg maa ko joxul loolu sant yàlla rek. beneen bi ci toppi muy événement bi ñu jublu. ma ciy soññaat bu baax chaque année dañ koy def mooy jullit ñi nañ ci def luñ mën rek te bañ ci def luñ mënul. Mm-hmm. ndax sunna rek la waaw. waaw kadda kenn ku ci nekk def ci li nga mën rek li nga mën nga bàyyi ko ba léwee nag jàmm boo ko mënee def ko hmm. muy jigéen ñi muy góor ñi muy borom kër yi. waaye suñu mën na cee neexal yaram mbokk pour commerçant yeeg coiffeuse yeeg nangam ak. waaw buur sa sarax ak sangu yëmut ak dara dafa am ñoo xam ne sangat seen mbir la dañu war di sangu bu baax am ñoo xam ne dañu war di sarax bu baax am ñoo xam ne war di takk bu baax ñetti nit ñi dañoo am. ndax am na ku ma ci ni sangoo naa lu ne waaye waaye suñu xam ma lam ma waxoon ne man naa koy sangoo mooy sama laay te xaw ma ne woon te loolu lu simple la muy wa wa in yaakaadu bu simple. xam nga moo tax am na ñoo xam ne nii bët rek moo leen sonal cat kese waaw bu dee buñ dee sangoo loo xam ne luy fanq cat la rek jàmm rek la ñu am hmm. am ñoo xam ne rab rek moo leen sonal buñ dee sangoo loo xam ne nii luy fànq rab la jàmm rek la ñu am. waaw am na ñoo xam ne sarax dong moo seen mbir ma am naa ñoo xam fi ne chaque semaine dañ seetlu ci man mhm. chaque semaine dañ seet man génn leen yi génn leen def leen lii mhm. wala boog saa yi ñu amee ñu am la ñuy lijjanti daa ñëw sëñ bi seetal ma lii na benn sarax laa boo koy sarax boo demee mu yomb da nga àgg jot ci mooy lépp mooy àdduna nee naa la moo téye àdduna bi mhm. saru sarax ak seet parce que bu ñu la seet mën ñoo xam sa sarax bu ñu la seet rek ci la nga xam sa sarax bu ñu waxee li nga bëgg day day yomb ñàkk koo fonk nag mooy xaru waaw man de xalaatuma génn bis benn bis laax de mm-hmm. am ñoo xam ne dañu yaakaar bu ñu saraxee tey dañoo war a toog gaar bañ a sarax atum yàlla nangam nangam fekk sarax mm-hmm. boo xam am na ñoo xam ne nii seen bidiw ni mu demee chaque jour dañu war a génne sarax boo xoolee ci mag ñi bu njëkk saa yu ñu dante dañu fanaanoo dara dañu xam loolu ñuy fanaanoo seen sarax la ñoom jërëjëf voilà su doo nga ne salaamaaleykum wala waaw yàlla jaa ngeen laal ñu daal génne daal lay jox nga sot sa pot daal dem demoon na sax ba boobu ñuy yalwaan daan nañ ko jëfe ci kër yëpp chaque jour bu ñëwee ndongalaan ah kañ parce que li ko waraloon mooy dañoo xamul seen saar di ko def moo tax musiba yi ba dañ ko daan digri waaye doo am réew mi ñu bëri am nañoo sëñ Axma alaaka kóllëre yëre yi ci teraanga fexe teraanga bu ne macha allah te ak ceeb donc waral ak leer saraxe waaw loolu lañ ciy sant yàlla baax dafa am ñoo xam ne ñu fekkoon ci ay jafe-jafe ak xat mm-hmm. wax ne lii lii la ko waral bu ngeen defee nii dina dañ bu fekkee soxna su la jugu la mën la génne sarax bii tey jaxasoo ak moom bis yii. parce que des soxna day am rab boo xam ne am na bis yoo xam boo jaxasoo ak moom da lay sonal. am ñoo xam bu ñu tëddee seen soxna parce la ñuy def ñooñu daanaka rab yi dañu leen fanaan dóor bët set. Hmm. am ñoo xam bu ñu seen seen soxna benn yoon mënatuñ ci dara dara. maa ngi say fukki at. waaw waaw ñàkk njaboot waaw ñàkk njaboot ñàkk ngóora surtout wàllu ngóora googu dañ ko ak ngóora dañ koy faj góor ngóora doom lañ koy doy jigéen ñi buñ rafetee bëgg dee dafa leen lépp ci biir kër yi te xamuloo daa daanaka day fi ne yàgbant yi ñu romb ñoom ñoom la yemale ak ngóora dañ koy dañ koy toppatoo di ko di ko di ko di ko di ko traité waaw fexe ba mu mat sëkk waaw ma ngi dafa bokk ci daan ñaan ak di ko kii mooy xuwa wala kattan sëy ah mooy neexal kër di waaw mm-hmm. ah, yooyu nag am nañ ci ay secret yu doy waar yoo xam ne ñuy wax ci écran ah, waaw waxal léegi yow fi sa ngóor a toll rek ñu yokkal la xool yomb na jeex noonu gars yi waxtaan bi ñu seqoon nag sëñ Ahma Lo yéen ñi ko xam dem ba di ko dàkkantele borom sarax yi man nee naa man buur daf maa sagal daf maa dimbali sag gi xam nga mooy lan mooy ku jëflanteeg moom bu la wooy naan la buur alhamdulilah ku jëflanteeg moom danga naan buur jërëjëf sant naa la ànd bu bu yàgg la buy dugg ci juróom-ñaareelu at ci njub la ñu xam ci moom xam loolu li muy def man ko lool seetandoowul ak kenn ci réew mi ci wàllu sarax ci wàllu ilmu nujum ak ci wàllu roxaani saa boo jëfal teg sa ma loo mu gindi la ba jël sa sarax teg sa loxo boobu boobaa sax dootoo faale benn sëriñ kon sa ñax ma in uridu ilal islaha mastataxtu wa ma tawfiqi illa bi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey nag ñoo fekk ñu son loolu ñu ngi jégal baat beeg yëpp wallaay mu ngi noonu waaw sant nañ baa gërëm nañ jaajëf